ma jàpp la rek ñu ma nekkal bindu ma ñëw ci dëgg la de mooy yàlla bi moo tax yàlla wàccee mooy bi man baax naa ci société bi kon li may def ni yàlla ànd na ci sa classe bi man rek maa wul ci ñoom dara pour yéen jinne yi bari nañu mën a faj ñu ñu mën a faj mais waroo ñu yaar bari nañu leen mën a faj yàq gàllaa ci jàmbur mais ñemewu ma de Thierno Moule ñemewu ko de. Thierno Moule bu gisee marché day génnee sama jënd jënd bi day jàpp ba pare jox ma garab mais su ma su doon jox jënd bi garab jënd bi day toj garab bi. dégg ngeen wax ji. nga ne Thierno Moule. ñoo war a leer loolu pour nit ñi xam ko. nee na Thierno ne jinne bi lay. jinne bi lay jinne bi lay jàpp ba pare tënk mënu ko door di door di jox xale bu jigéen bi garab. dégg nga loolu leer la parce que ñu bëri da dem ci ñoom ñu jox la garab fekk jàpp ñu jinne bi mais dama lay jinne bi laa njëkk a yeew. suwaa nga ñëw toog jinne bi toog ma yeew ko suwaa nga nekk sa kër foo mën nekk. ma yeew jinne bi ba pare doo lay jox garab kooku foo jaar moom jinne bi léeg-léeg jigéen woo ma ne ma su may ànd ak sama borom kër du ma yëg suma bopp maanaam damay dégg bànneex waaye xaw ma lan mooy loolu parfois ñu woo ma wax ma laar yi la loolu jigéen ñi bàyyi xel ci loolu jinne mun na def loolu moo koy faral di def léegi loolu yow lan moo la xiir ci loolu tànk yi leen téye. Eh. pour bëgg a jóg mais du mën a jóg. yàlla may na eh. ko de waaye yàlla may na Thierno Moule de. yéen taalibe ah man moo tax foofu yéen a ngeen yor cinq heures quarante cinq cinq heures quarante cinq cinq heures si xool sax xam nga ne liggéey bi metti na de ah waaw léegi nag jinne bi mu fas yéene ko génnal ci ndaw si waaw ah? waaw bagage yi nag xupp carte yooyu léegi génnal ci xale bu jigéen bi nga bàyyi ko nga ñëw tuut nekk sama taalibe léegi nag xool ma fii xool ma yow nga ne borom alal nga milliard boromi milliard alal bi nga yor nag da ngay ñaar benn bi man benn bi xale bu jigéen ndax yàq nga avenir am sonal nga yow man maa ci yow dara da ngay diviser deux nga jox xale bu jigéen bi nga jox ko surtout. xale mm-hmm. ah. buggul kenn. waaw. Ah. la. xale bu jigéen ñi bëggul kenn xale ko bëgg. jëkkëram nag. xale sa bopp nga wax jëkkëram nag. léegi xam nga lu ma bëgg ah. nga génn ko on est d'accord nga ne loo tudd yow man man leer laa leer xanaa yow yaay leeru asamaan bi wala leeru jant bi wala biddiw laa damay wër si biir yàlla ci ah biddiw ah biddiw leer ah ah biddiw leer mu ngi tudd biddiw leer ah leer ngay borom maqaama nitu leer waaw borom mi kon yow moom ñu changé tur bi dañuy def leeru Thierno Moule wala leeru Moule leeru Moule bu ko defee mu may yóbbu ci juróom-ñetti asamaan yi parfois bu mu buggee dem Màkka fois bu mu bëggee dem états-unis aussi nee na fan yi day dem états-unis danga da ngay dem états-unis ah da ngay dem états-unis you speak English you understand English you talk in English you talk in English boo demee états-unis nag mbaar gars yi dañuy gis dégg naa am na ay jinne de ah duñ la gis États-Unis xaar leen ma Thierno Moule moo ngi ñëw ànd ak Guinée waaw pare nga pour ma ànd ak yow États-Unis. yow waaw yow da ngay dem fu ne. ah. yow da ngay dem fu ne. naa dem fu ne. fu nekk ngay dem yow. lu tax. da ko gis ci man. da ngay toog di gis li ngay gis. Mhm. damay toog di gis li may gis. xasida baa ngi noonu leer ah waaw kon dañ koy ah, jullit la sax moom n'est-ce pas hmm. tubalaat rek wala moom da day day dem màkka sax di di xaj di yaay moom xam naa ne buy demati màkka daf ñuy bokk rek ànd ak bu ko defee duñu duñu dagg visa ak yooyu xamante ne sax nit dañuy jékki-jékki rek yoxosu ci néeg bi dem gars yi fëgg ba sonn te du mooy yàlla. ma nag bëgg naa booy dem Màkka rek nga bokk nga def dégg nga dem états booy léegi nag ci huitième asamaan si nga ànd ak man bu ñu demee ma xool gars yi foofu gannaaw ñoom may foofu borom leer laa ma Thierno Moule Sow nee na borom leer la leer Moule waaw leeru naa la leeru Moule d'accord ci loolu ah leeru Moule boobu neex na wala waaw ah, leeru Moule kon bindal mu gaaw buñ jàppee jinne ci saa si dañuy bind tur yi balaa ñu koy fàtte ndax jinne yi dañoo bari xoolal biir bi foofu leeru Moule xam yàlla. kii xale bi la xale bi tey boo ko léegi yem. waaw. nekkul ci say sa bu rafet say sa bu rafet teroo nga xam yàlla say sa bu rafet teroo nga xam yàlla. waaw dëgg la de bindal foofu. sañse bu rafet taxul nga xam yàlla. waaw. moom dëgg la. soo ko soo ko bëggee xam il faut nga xaw a nga yàlla baa ngi joxe message loolu mu waxee jaar nañ ci ay temps wax kii dof laa dafa paawee dafa nangam nangama tey macha allah yàlla jox nañu lu muy dégg ci nag ponkal la nee na benn noppam bi muy dégg aduna bay muy dégg saxaaba yi léegi nag yow dangay fexe tey suñu loxo rek ba ñu dem ziar saxaaba yi gannaaw saxaaba ñoo ngi waxtaane Cerno mooy hmm? moom moo tax yenn saa yi da koy wax bu garaaw moo nekk. mu ne benn nopp mooy dégg àdduna beneen nopp bi mooy dégg saxaaba xam nga ne kii jinne bu bind la. waaw bind la ah. waaw. waaw leeru mu ah? nga génn ci xale bu jigéen bi nga bàyyi borom këram ci jàmm ak salaam. su ko defee yow nga nekk sama taalibe yow lan nga bëgg lan ngay lekk yow lan ngay dundee. looy lekk tuuti rek. tuuti day naan. xanaa yow kooku zaaru malaaka nga malaaka du lekk. zaaru malaaka nga wala. lekk si man moo diis. nekk ci yow moo diis moo tax doo lekk doo nelaw léegi nag man gannaaw maa ngi nekk ak yow uyu ma fi man du may nelaw lu bari xool ma fi maa ngi nekk ak yow man du may nelaw lu bari du may lekk bu bari léegi nag parce que man du ma feebar ay fàttali maa ngi topp carte daf may arrivé tout le temps du ma nelaw du ma lekk <coughs> gis nga mii damaa tooy yàpp ji ne ba tooy naa ko de waaye yàlla chaque jour nekk na sama taalibe nekk na sama bras droit yaa ngi dégg bokk nga ci jinne yi ñu liggéey bi teem ñu teem asamaan dandan da koko cey cey sax mu leen makka nag bëgg naa ñu dem ziare yonente bi waa ay dagg bi yooyu dem chaque minute may ziare yonente bi waaw damay bokk rek ma ne d'accord ah ah ne bu may dem Arafat bu may dem Arafat ñu ànd ak ah jinne bi nee na bu may dem Arafat ñu ànd day sànq sallallahu alayhi wa sallam ci yàlla nee na bu may dem Arafat ñu ànd day sànq macha allah waaw sa yaay def la waaw waaw. ci mule mooy jàpp jinne bu ne moom leeru mule leeru mule ci jin bu ma nga woowee rek nga ñëw bu ma ne leeru mu la leeru mu la bu ma la woolee bu ma la woowee da ngay ñëw ah fu ma la woo nga yóbbu ah fu ma la woo nga yóbbu leer ma boo waxee jinne ba mu ne la waaw c'est fini léegi nag yow nekkal ak man ànd ak man fu ma jëm nga topp ma fu ma nekk nga nekk ak man gannaaw kenn mënul yéex dëkku jinne Thierno Moule nag moo mën a dëkku jinne yi waaw. waaw. waaw. waaw. waaw. lu tax doo wax. saafaraay moom moo yor duñ wax si yow. saxaaba yi laa yor man waxuma jinne wax lii nag boo ko waxee am na ay jafe yaa ngi xamante ne boo waxee dañu ko gis waaye nag yàlla xam non c'est vrai am nañu soxor yi nga xamante ne ñu déggee lii dañuy day dem dafa bëgg dem mais nag tuubal naa ko ba pare moom bu demee moom fii la jëm si ci biir mais avant mu dem ma wax ak naa ñu moom ñorul na taali ba pare voilà léegi on est d'accord bàyyi kii tout tranquillement kayitam yi day ñëw ah kayit yi liggéey gaayam du am problème xale bu jigéen bi bàyyi nga ko ataaya bu mu naanoon bi nag biir bi waaw waaw léegi nag loolu nag dama bëgg mu génn dama bëgg mu génn ataaya bi génnal ataaya bi yaa ko créé yow on est ah ataay mu génn moo ne d'accord waxal ak man ataay bi dina génn waaw dina génn ataay bi waaw dama mu génn ataay bi ñu naan dina génn ah mu wàcc ko nan la koy def nan lay génne nu muy génne danga may wax lu leer nag aa nan lay génne waaw nan la koy génne la ah di nga ko génne c'est assuré lépp lépp léegi di nga ko bàyyi dina am doom normal dina ëmb di nga ko bàyyi mu sëy ak jëkkëram ah yow yaa kon génn ci moom bu ko defee boo yéeg ci yitteeku asamaan nga ñu demaat booy dem Màkka ñu demaat yàlla yàlla jéem jéem leeru moole leeru moole leeru moole génnal ci xale bu jigéen xale bu jigéen mu tudd Adja Cissé génnal ci Adja Cissé leeru moole génnal ci yàlla yàlla yàlla leeru moole leeru moole leeru moo ne génn génn leeru moo ne leeru moo ne génn ci xale bu jigéen génn ci xale bu jigéen leeru moo ne leeru moo ne génn génn génn génn sarga fuera sarga fuera espagnol sarga fuera sarga fuera leeru moo ne leeru moo ne génn yàlla yàlla génn génn génn génn génn sarga fuera sarga fuera sarga fuera sarga fuera salga afuera, salga afuera, génn leer mu la leer mu la génn génnal ci xale bu jigéen bi génnal ci moom génn yaltu yaltu yaltu yaltu génnal ci moom salga afuera, salga afuera, leer mu la leer mu la génn génn leer mu la leer mu la génn génn génn waa bi gis na de génn coono bi la génn génn génn leer mu la leeru murid leeru murid jël jël sarga fooy la sarga fooy la leeru murid leeru murid jël jël yàlla yàlla génnal ci xale bu jigéen génnal ci xale bu jigéen jël yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla jël jël jël jël jël jël jël jël jël leeru murid leeru murid leeru mu ne génn ci xale bu jigéen bi leeru mu ne leeru mu ne génn génn génn génn génn génn génn génn génn génn génn ci xale bu jigéen bi leeru mu ne leeru mu ne génn leeru mu ne leeru mu ne génn génn génn génn génn génn génn génn ci xale bu jigéen bi leeru mu ne leeru mu ne leeru mu ne leeru moo la jénn jénn jénn génn ci xale bu jigéen bi leeru mu le leeru mu le jénn leeru mu le leeru mu le jénn jénn jénn jénn génn ci moom yàlla yàlla jénn jénn jénn leeru mu le leeru mu le leeru mu le jénn génn génn ci moom ba nga set yàlla yàlla jénn yàlla yàlla yàlla jénn jénn jénn jénn jénn jénn jénn jénn jénn jénn jéem leeru mu de leeru mu de leeru mu de leeru mu de jéem yàlla yàlla yàlla génnal ci yàlla tam leeru mu de génnal ci xarala jigéen yàlla tam yàlla tam jéem yàlla leeru mu de jéem jéem jéem jéem jéem jéem jéem jéem yàlla tam yàlla tam leeru mu de leeru mu de yàlla tam génnal ci moom génnal ci moom jéem jéem jéem jéem jawtu fam sarga foyra sarga foyra espagnol sarga foyra jeddi jawtu sarga foyra sarga foyra sarga foyra sarga foyra leero mole leero mole jenna jenna jenna jenna jenna jenna jenna jenna jenna jenna jenna jenna leero mole leero mole jenna jenna ci jenna ci xale jenna ci yàlla yàlla jenna jenna leeru mu ne leeru mu ne jënd jënd jënd jënd kilifa jënd kilifa leeru mu ne jënd buy naaw jënd ci yaatu yaatu yaatu yaatu yaatu jënd jënd jënd jënd jënd jënd jënd leeru mu ne leeru mu ne leeru mu ne leeru mu ne jënd cette corde, cette fille-là, sors cette corde, cette fille-là, sors cette corde, cette fille-là, sors cette corde, cette fille-là, sors, sors cette corde, cette fille-là, sors jën jën jën jën leeru moo leen jën yàlla leeru moo leen jën yàlla yàlla leeru moo leen jën jën jën jën leeru moo leen jën leeru moo leen jën yàlla yàlla yàlla génn yàlla leeru mooy leeru mooy génn yàlla yàlla génn génn génn génn génn yàlla soor set koor set kiila yàlla salga fuera salga fuera salga fuera salga fuera salga fuera génn salga fuera génn salga fuera salga fuera salga fuera génn Salga afuera, sácalo afuera, sácalo afuera, salga afuera, llena, llena, llena, llena, llena, llena. Salga afuera, salga afuera, llena, salga afuera, salga afuera, llena. Salga afuera, salga afuera, salga afuera, llena, llena, llena, llena. Amerendo japo de llena, llena. Salga afuera, salga afuera, llena, salga afuera, salga afuera, llena. Ya, ya, ya, ya, llena, llena, llena. jën jën jën jën yow yow yow génnal ci moom soor sa kóor sa fiira soor soor sarga koyra sarga koyra sarga koyra jën sarga koyra sarga koyra sarga koyra jën jinne bu am doole la ah jinne buy dem Makka di umra di yëg ci asamaan ay ñett juróom-ñetti asamaan di ndaanaan la jiital yàlla yàlla sarga foyra sarga foyra sarga foyra jiital yàlla jiital sarga foyra sarga foyra sarga foyra jiital yàlla yàlla yàlla génnal ci yàlla soo set koor ak billa so les les les les les les les naa ngeen ma yàlla dana jëlee guddi leen ko xëcc leen ko mu génn ci xale bu jigéen xëcc leen ko buddi leen ko mu génn ci moom buddi leen ko buddi ci xale bu jigéen buddi leen ko xëcc leen ko bu baax bëgg leen ko xëcc mu génn xëcc leen ko bu baax ji ana jinne leen bulok bulok xëcc leen ko buddi leen ko mu génn yaatu jéem six ci yàlla ci Thierno Moule ah ya dégg ngeen moom mission ni lii kon nag dinaa gën a nangu lii aussi liñ ci jaay ak sama daal li mu li may def nii nit simple yàlla moo lay dimbali rek yàlla moo lay jàppale ko kàlla ku yëngu noonu depuis sànq moom mooy xool maa ngi koy bàyyi xel jinna dégg ngeen ndeysaan ay meɗen ɗo haa jooni meɗen jagga jinne meɗen ɗo e six heures sept ɗiɗi maa ngi tëral fi benn jinne keneen kaa ngi yuune xaaral ma ñëw defal la bagage yow tey suñu borom moo màgg yàlla jinne Salga fuera, salga fuera, salga fuera española. Salga fuera española, salga fuera, salga fuera, salga fuera, salga fuera. Salga fuera, sácalo fuera, sácala fuera, sácalo fuera, sácalo fuera. Española, sácalo fuera, salga fuera, salga fuera, salga fuera. Hey, come on down. Come on down. Come on, come on, come on here. Come on here. akbar subhanallah subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar wala ilaha jinne bu fi ñëw tudd yàlla nga ne fii këru yàlla la de yàlla nen moo fi nekk jinne bu fi ñëw wax yu wax yàlla kër gi yëpp tur yàlla yàlla moo fi nekk di gis yi xonk yeeg yooyu yi bagage jinne yi la waaye yàlla neen moo fi nekk waaw yi moom suñu cumbukaay la ñuy wax cumbukaay cumbukaay la waaye yàlla neen moo fi nekk ak ay jinne ak ay ruwa bagage yi moom cumbukaay la kii eh, eh, xale bi baal ma ak. yow la kan kii ku mu àndal. man la Mama Gueye. yow la Mama. Mama Gueye. Mama Gueye. waaw yow la nga. Ah, man jinne laa. man kese moo nekk. man jinne laa. Mama ñi yow foo dëkk. ah yow foo dëkk ah fu mu dëkk moom lan la moom. yow lan nga. jinne nga. kan nga ànd kan la àndal àndul ak kenn. dëkk. boo leen dindi leen seen jinne bu ñu jógee fii rek dem rek ñibbi la ñuy portable am ngay di consulter. ana portable la. am a ngi nii. xoolal lan moo nekk foofu. kan moo la yónni. jinne yow jinne nga. dañ laa yónni. ku la yónni. ñi ko jàpp. ñan ñoo ko jàpp. ay rabu jinne. ay rab ah? lan nga yow mii di wax lan nga. man génn naa. yow génne nga. waaw. yow yow noo tudd. yow noo tudd. damay làqatu si ginnaaw. da ngaa làqatu si ginnaaw. noo tudd yow. moytu micro bi moytu mu kii. noo tudd yow. ah. ma jarul wax sama tur nga ñëw ci kër xalif général nga naan maay nangam naan. nan nga tudd yow. waxuma ko. lu tax waxoo ko ma jógee da ngay

dafa am eh, lan moo leen jàpp boo leen jógee bi ay Mouhamed. yow jullit nga wala doo jullit. jullit ah. yow lan nga jinne nga wala ruuxaan nga wala lan nga. <laughs> seytaane la. seytaane nga. mais lan moo tax nga tudd Mouhamed. Mouhamed bi moom foo ko jëlee. wala kaana bi foo foo jëlee bi. suñu prophète tur bu sell boobu ba pare nga nekk seytaan xam nga ne yow dinaa rëkk sa ndigg yow ah eh mer nga naan baal ma kacapan yi bon da ngeen di jël ay turu prophète nga naan ay seytaane laa ba pare Muhammad laa tudd ah mun na nekk eh waxal ak man yow góor nga wala jigéen nga xale bu góor la kon jinne bu ndaw nga yow. jinne bu ndaw laa mais dama bëgg xale bi. da nga bëgg xale bi. <laughs> waaw. am nga 26 ans. 26 ans mais dama ko bëgg te yàlla. Eh, ñaata at nga am. ñaata at nga am. 26 ans. kon yow ak booy boobu yéen soldat. Saliou. bon. bu pare ngeen teg ay diil quoi ah. moom moo ngi jóg mu jëm moom. ah dañ laa yónni. yow ban melukaan nga yor yow. ah. jaan mel na. jaan jaan jaan nekkal jaan ma xool defal yëfu jaan defal yëfu jaan mooy def yëfu jaan xool ko jël ko mu dem cey ceer ma xool jël ko ko balaa muy daw ah, yow jàng. jaan bu soxor sax. jaan bu soxor. xale bu jigéen moom fu mu dëkk moom. xale bu jigéen mu ngi dëkk si biir géej. ah. mu ndox mi. yow yow jaan. <laughs> moom man jigéen bi damaa daje ñoom pépé bi jàng bay ñëw. waaw ma ko bu xale bu jigéen bi yóbbu dana ànd ma ne ko moom kese maa ànd ma ne ko est ce naa laa bëgg ñu sa kër mu ne ma ma ne ko boo a am lépp si sa àdduna rawatina nag am lu may jël. léegi yow léegi yow boobu yow yow nga mel boobu yow ban façon nga mel. man tubaab laa souffrir nag. da nga nekk tubaab. ma nekk tubaab. nit. ah waaw man si si. si. mu neexee laaj ko français bu mu neexee mu tubaab nga mel da mel meloon ni tubaab. bii ce jour là j'étais blanc. ce jour là t'es. t'étais blanc. oui bien sûr. Je, je me rappelle très bien, c'était le jour de vendredi. Oui, le jour de vendredi même. Mais j'étais après ces enfants-là. Je l'aime de tout mon cœur. Ajna Charamudai Wai. maa koy andi bëri façon melukaan bu man maa ko koy andi. Ah, ay melukaan yu ay maa koy andi ay nit yu seytaane. man maa koy jaxase ak famille ñoom pour mu bañ a ñoom. place su liggéeykaay bu mu dem man maa ko fay génne man maa ko fay génne yàggal ko ay njàngam. ay bagages am yu mu doon njàng yëpp moo ngi nii sama kër man maa ko téye. kii daa nekkoon benn xale boo xam ne dañ ko waroon a dégg si àdduna bi ma ne loolu du fi amee parce que dafa am ay nitu seytaan ñoo xam ne dañ koo yàgg di ko xeex ñu boole ma ak moom man loolu moo toppoon ma ñëw tamit bokk ci xeex bi mais yaakaar naa ne tey laa fi jóge tuuba ngir ñuy wax waaye xale bu jigéen bi mu dellu si école bi. parce que yaakaar ngay tey ci jigéen moom xale bu baax laa ko yëru laa xam ne ñëpp ko soog moo taxoon man tamit man bokk ci rek. mais bu nekk tubaab nit ku xees. man des fois damay nekk tubaab bi ñu ko wax moom si ay gént di ko jox ay cadeau. des fois mu dem école mooy ñëw tamit ma gàttalu ko yoon bi nangu ay bagage yëpp di waxtaan moom loolu yëpp dama koy def loolu. ah jinne yow grand nga de. yow noo comment tu t'appelles. j'ai vu les yeux là. ce n'est même pas le premier nom qu'on m'a donné. mu ne. nee tur yu bëri la am nee na fàttaliwul sax premier tur bu ñu ko njëkk a waaw ban tur nga mujjee am ni mais aujourd'hui c'est mieux que souvent amul sens ma nekk fii di rappelé waa loolu yëpp c'est mieux que nga tuddee ma Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ma tukkal la nekk su taalibe ma bàyyi xale bu jigéen bi mu dellu si école ma loolu rek moo ma ñor fu taalibe mais yow waaw mais yow li ma la def nii mos nañ la ko def man fu ma demul dem naa fa. kan mooy faju yow wala xale bu jigéen bi. xale bu jigéen bi amatul dara lu mu am si àll bi jeexal na ko si àll bi amul fu mu demul mais fu mu dem rek boo koy jaxase ak ñooñu pour ñu bañ koo faj xaalis mu am rek fu nekk dem na fa amul fu mu dem ba dem naa ba yëbal ko fii ba Casamance. mais garab yi ñu ko jox ci foofu dama koo yàq yëpp parce que xamoon naa ne foofu tamit mënoon na koo faj mais dama yàq ay garabam delluwaat ko fu mu nekkoon. nag mën nga ko yàq yow. Thierno Moule ñemewu mu wóor a des ba tey damay lox. laajte yi ba léegi day fii de bu nga duggee fi ba tey da lox. lan moo nekk ci kër gi kan mooy Thierno Moule. rek laa koy wax sama doom bi mu ko joxoon si sama si biiram bi ak ci ginnaawam bi pour mu teel ma ko na mu ko delloo mu bàyyi ko ak jàmm. jox kan ay doom kan nga joxoon ay doom. kan bu jigéen ah. doom parce doon voyagé te aw ma kenn ku ko dénk mu bàyyi ba muy nelaw rek ma teg ko ci ginnaawam yeneen ñi ma teg ko ci boppam bi mooy tax moom bu tiimee kay boppam bi di metti a wax. tout le temps bopp léegi nag karaw bi nu mu mel nii nag boppam yaa ko def. maa koy def moom am karaw parce que man dama gis muy defaru nekk nit koo xam dafa taaru ma jël karawam bi chaque jour di ko def à la création mosuma bëgg mu am karaw dama koy watt ba mu set huit chaque jour. yow jënd yow kàccoor nga ah. <laughs> léegi nag kii xale bu jigéen bi àndalul ak kenn. àndul ak kenn mais ñaari téléphone yi ñoo nekk saagam. kii toog gi sang maaru la. xàmme naa ko bu baax bool toroxal ay doomu aadama yi. rawatina yow xam na tamit dañuy dem géej di nappi waaw loolu yëpp da koy def di leen di tooxal si àll bi. yow kan yaay wax ni. man ñu koy wax xam naa ko bu baax. lan nga. yow lan nga. man maay jëriñ bi jàppale jigéen ñi man maa ah, kon xàmmee nga kii. naa ko bu baax. fu mu dëkk nga ne. moom Sango Maar la. Hmm. yoole de. na dëgg de. kii mooy parce que ñoom des fois dañuy ñëw di ma woo si seen réunion si seen ay programme te man du ma fa dem heure bu ma demoo dañuy takk sama ñaari tànk ak sama ñaari loxo du ma yóbbu man damay fanaane di xeex ak ñoom moo tax ba ma ko gisee laa ko xàmmee. la fi lay leer. mais jarul ngeen di dugg nag arrière noonu rek. gars yi dañu dugg ci biir nañu arrière. duñ dugg normal nañu arrière rek waaw. bloqué ko na bàyyi mu taxaw mais góor yi nañu arrière ah. léegi nag. ah xàmmee nga ko. ñoom dañuy faral def ay réunion jinne yi. waaw. pour réunion pour la. pour ay xale yu jigéen nekk ay xale yu góor di tasaaroo di dem ci école man xam naa seen yu bëri parce que wax ma seen secret yi. ñoom dañuy dem si école yi xale yu jigéen di leen di dugg. Ah, ah waa kay. di leen di daaneel ñuy yuuxu. na wax waxal loolu dafa baax parce que école yi dañuy daanu. demal dañuy yuuxu sax baaxul ci ak jeunes yi loolu yëpp dañ koy def. waaw waxal. wax na wax secret yi waxal. moom xoolee xale bu jigéen wala xale bu góor boo xam ne dafa am avenir buñ ko teelee gis après ñoom dañ koy kiyee. di na wax ah du gis nga école yi de xale jigéen yi dañuy daanu. dañuy nga ah, kon jinne yi ñoo na wax loolu dafa am solo. waxal leeralal jinne. loolu jinne yi ñoo koy def. Hmm. waaw. dañuy réunion di dugg ci école yi di daaneel xale jigéen ñi. waaw. yow doon woo ci réunion yi. Hmm? dañ la doon woo ci réunion yi. dañ ma doon woo mais mosuma cee dem nag heure bu man dama doon xeex ak mais ñoom groupe lañu nooy xeex ak ñoom. moo tax heure bu ma sama yaram bi yëpp doon metti parce que man kenn nit laa koo xam ne maa doon euh, jëlal xale bu jigéen bi paa mais ñeneen ñi ñëpp ay nitu la ñeneen ñi ay jinne yu bon lañ yoo xam ne tamit dañ doon xeex ak moom. parce moom daa am leen lu ñu ko doon bëggoon a jaay muy affaire alal ñu jox ko pouvoir après. jigéen yu bañ ñu buñ koo jox alal léegi alal boobu dafa nekk loo xam ne daal déw moo tax man daa xoolu ma ci côté boobu kon ñu kon xàmmee nga jinne bi kii xàmmee naa ko bu leeru muule xàmmee ah, xàmmee nga kii ah jinne tontu ko tontu ko xàmmee nga ko ah? tontu ko ñaari jinne ñoo fi mbëkkan xàmme nga tontu ko xàmme nga ah? mu ne mu ne géeju Sangomar moo mu ne géeju Sangomar bi foofu moom amul jot toog moom kan. moom moom moom di wax. mais damay toog bi damay yàggal ma damay dem rek. jënd dégg nga yoo xam. bàyyi laakatu bi xam naa la bu baax xam naa la yàgg naa la di la gis foofu du tey da ngay rek. même bu fekkee benn yoon nga fa mos wala ñaari yoon sa xaame naa man si géeju Sangomar bi laa dëkk. sama leer xaju foofu. yow jinne bu ndaw nga kii jinne bu ah. kii kay jinne bu ñu nekk ay nekk ay xale yu ndaw parce que dañoo nekk ay xale yoo xam ne dañuy yoon si seen mission yi rek loolu kese lañ fi nekkee mais bu yu mag ñoom dañuy utiliser balaa ñu koy xam du jot dañu am programme ñu xale yu ndaw yi dañuy sonn si seen programme yooyu. Ah. kon jinne yu ndaw yu mag yi dañuy yu ndaw yi. waaw ñoo yor nga dem ay programme yàgg nga dem ay programme ah jom ngeen de. jom ngeen Malick yàgg na la ma ne moom dañ doon tase noonu rek rek laa xàmmee bu hmm. ko gis xàmmee waat. ah dañ ko doon tase. Hmm. léegi nag yow lan nga wax ah? yaakaar naa ne bu jigéen ñi ñu delluwaat si ko. après nga def na yow an sa papa sa ah? yaay. ñu ngi fi. ñoo nga jabar wala amu ko. aw kii laa gisoon koo xam ne moom koo bëggoon seen école te yaa ngi koy yaatal. te yàlla maa ngi yéen gerte bu ma jël coupé coupé ah na coupé supprimer loolu. te ànd ànd ak ah, lépp ah, ah, ma naan ma ma solo ma war. waaw. nga ne ñaar ànd lekk ko. ñaata ma. toog benn xale bu jigéen mu ngi toroxal bi ne moom moo gën a xiif ñaanal lekk ko kon yow loo loolu. jaral na bi xaw ma nee na ñaata at man maa ngi jógee sama xiif ay minutes secondes moom nee moom. <laughs> moom nee na ñaari at moo yooyu. Mm-hmm. gis jinne ak nit yi bokkuñ de ñee. waaw moom jaral na la xiif ak mar. da ngaa sonal bi nii xanaa dañoo war a may jaam. te dama bëgg nga bàyyi ma. nga def la. ma nekk xale bu jigéen bi. waaw. après. parce que maa xam ne boobu mu mayoon tamit du am jëkkër de parce que ku ko bëgg tamit dinaa ko yaakaar depuis loolu ba léegi man maa ko téye mënul am jëkkër mënul am dara te lu si lu mu dugg dinaa ko yaakaar bii boo nga bàyyi ma ak moom parce que yaakaar naa ko àddunaam bu pare. yaakaar nga ko àddunaam. waaw. Hmm, waaye boo génnee te moom adunaam dina baax dina am dëkkam. loolu nga yaakaar foofu ma nag yow na moom jëriñ na wax xeex boo baax maa ngi yow dañ xeex loolu parce que kii rek laa am. mu ne. boo ko bàyyi yéen ñaar di ngeen xeex. da nga bëgg a ma. waaw. ah ne yow damaa bëgg a raak xam nga kuy Thierno Moule. Hmm? xam nga ma. yow sànq ba léegi maa ngi négocié yow nga commencé di ma andi histoire bu tool yi sama yaram daa tàng na boo bàyyiwul man ak yow lay doon bu leer laa la ba tey bii bañu ma ci dara nag damaa sonn ci yow. dañ ñoo toroxal bayu jàmm chaque jour fu ñu dem nga fekk ñu foofu yow yaa ñu sonn ñu ñoo sonal trop fay ñu suñu jàmm. Hmm? ah. gone na. bu may ma bu jigéen bi. bu may ma bu jigéen ma sëyal ci ma takk ko. mais yow doo nit jinne nga. waaw boobu tuubalee rek. dama naa doon. mun nga soppale ko nit. yow mi ko mën koy ko. du yaa xalif man kay waxuma man damay soppaleku nit yow kay yaa nit yi loo wax ci xalif général yow da ngay xuloo wala da ngay xeex waaw ci moom mu ba mu bañu jàmm kii man daal aw ma lenn lu ma yokk ak lu dul nga jox ma kii mu yóbbu ko sama kër loolu kese laa. yow foo dëkk yow. bu ñu jënd fu ma dëkk jox ma kii ma lay laaj rek jeex. bi da lay xuloo nag. ah yow de xam nga ne doo am kii ah. sa liiraay bi si boppam munoo koo fay lii daf may déranger. xam nga. sa liiraay bi. man kay mënuma fay sama liiraay bi. kon bu ma xoolati quoi. ah dina bëggul jàmm nag. <laughs> comprendre yow nga nekk fii ma fixé di ma xool. léegi yow ñu waxtaan wala. soo ko ba léegi maa ngi waxtaan ak yow nga may andi affaire histoire bi ma bàyyi la. waaw kon kon ñu waxtaan. waxal maa ngi lay déglu. di nga bàyyi xale bu ma war mais fii lu pour yow. fii pour nit yi yow nag jinne nga yow da ngay ñu may la jabalu jinne. man nag ma ko jabalu jinne moom laa bëgg te dañu ko may. kan moo la ko may. bu lijjante bi ma ko may jàppal loolu rek. jinne fii bëri na histoire rek. laal ma. paaxa de amu fi nag. ma laal laa la wax. Ah, wala ngaa indaale paaxa bi. ah jinne baa topp de. léegi nag. kenn mu ne bu ma laal bàyyi ma bu ma jóge. ma bàyyi. bàyyi ma ma nekk xale jigéen bi ko bëggee nag ma yóbbaale ko léegi. boo ko yóbbu yow. moo ko yóbbu xam naa ko. mais kii lu pour yow ah? yow mën naa génn si sama affaire moom moo wala munoo ko may ma sama jàng laa la wax. Ah? génn si sama affaire. kan yow. yow laa waxal man man. yow nga génn si samay affaire laa la ma damaa sonn ci yow di ñëw toroxal may ma suñu jaam di ñëw sonn. ñu ah. ne de wax nañu dama leen toroxal. Hmm? Hmm? mu ne. produit benn façon yi dañoo sonn si ceeb bu lay nañu may si jàmm. ma ne chaque jour. benn façon bi dañoo sonn si yow damay leen seen jàmm. ah. yaa ngi wax léegi nag yéen nit yi wax leen ak jinne bi la. tontu leen ko ñoo gën a sonn si ñoom sang bi. tontu leen ko waay. ñoo gën a sonn yow da ngaa baax. tontu leen ko waay. ñun ñoo gën a sonn si ñoom ñi nga xamante ne dañuy dugg xamuñu waxuñu dañ laa nopp waxaanewuñu dañ laa nopp ñoom ñëw nañu nopp la par force. gisoo leen déggoo leen yàq sa àddina nag. ma pare ñu ko du ma ko téye parce que sama kanamu sëriñ taxaw. du ma ko téye. kenn boolewul la ci waxtaan maa ci boole sama bopp sama sëriñ boole ma ci ma dugg ci ba mu sax sax da ngay jaay baatu te pànkuloo. boo ci dara kon su boobaa moo tax it nag dañ nga nag egg si nga. yow da ngay ji da ngay jéem a pànk rek mais pànkoo. yow maa ngi suñu jàmm xamante ne ma ne maay dugg ci yow waroo mu te doo ma def dara. sama sëriñ ñu jéem naa ko sa yaay wax nag fii laa ko waxee te yow fii nga yow nag xoolal yow ngay nag yow nga yow yow ngay dëkk day day jaay xuloo rek maa koy mën a xuloole ñëwal maa ngi yow kii du sa sa kilifa la mm-hmm. mooy kilifa jinne ku la gën a foor yëpp gis nañ ko fukk vingt six ans àndam di nga tuub par force yow tuuti nga ci bañ a tuub naa si xam dara bu fekkee yaa moom par force moom la moom yow moo tax da ngay tuub par force yow ñi la fi gën a mag rek a tuub. ñu lay wax rek bàyyi la rek ngay tëlli tëlli rek di dem. xoolaat par force ngay def kii du sa morom. sonal ngeen ñu fatt ngeen ñu taay ci yéen. waaw waaw am na xool. dañoo sonn ci ñoom. loolu ko dimbali nag dañuy ah. topp ñoo sonn. nobantew ñoom yéen nobante leen ak seen i morom te ngeen bañu. waaw lan la waaw daaw nag fañ la noonu kon naan dama koy takk. jinne dégg nga loolu. jinne. jinne. jinne. jinne nekk asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. alhamdulilah laa ilaaha illallah wallahu akbar. maa ngi leen di nuyu di leen di ziare jéem ñëw di jégalu. yow la kan. man la Jeena Ba. yow Jeena Ba ma. janaba man ah janaba man la nga ne mais am na lu bëri loo xam ne daal wàññeeku na waaw wàññeeku ci man bu nekkoon si loxo bi si bopp bi ak si tànk yi mais am na lu des nag mooy lu nekk ci ginnaaw bi. ginnaaw bi dina la wax sànq. lu métti ci ginnaaw ak yeneen doom yi ci bopp bi. loolu ne ci wax. ma ma ma maa wax ak ginnaaw yi noonu kuy ànd ak Thierno du fii boo fi nekkee moom man bu ragal. jinja kiti saaya bola ya saaya wonon de allah saginode allah huɗo allah samado alfayu jeey alfayu batin hurjinna sojinna uldi nabiyanna nabi duree dureete soojinna soo soojinna kiisi kaasa koye kaasi sam sabogosi sam sabogosi sam sabogosi sam sabogosi sam sabogosi sam sabogosi kiisi saaya ولا يا سايا ولد الله سكنت الله كل واحد سمد الفاي جاي الفاي باتي كنت سوجي تقول كرويانا نبيانا نبي دوله دوله تي سوجينا so sojinna kisi kasa koye kaasi samsi samarusi samsi samarusi samsi samarusi samsi samarusi attaquer, avancer, approcher, avancer, approcher. Jinna, jinna, jinna, jinna. muy may leen ko ba ma génn li nekk si biiram bi jox leen ko mu naan ma génn. yow la kan. yow la kan. man maa téye biiram bi muy metti sa suuf. ko indiwaat sigi xool yow la kan ah. yow la kan laa wax man aw ma rab la rab nga noo tudd comment tu t'appelles je ne sais c'est les déshabillés. ah yow yaa fi doon wax sànq yaa ngi tubaab bi ah. oui je m'appelle Jean-François. Jean-François lan nga doon xuloog sama taalibe bi fii Mariama. Hmm? man maa téye bi. biiru bi muy jox leen ko ndox mu naan moo génne li nekk ci moom léegi. mais dama la bëgg a tuubal ba pare xale bu jigéen bi fu mu dëkk. Hmm? Hmm? fu mu dëkk. Suwal Fadiouth. ah. Suwal dëkk. ah. fan la jógee ah. waaw ah, loolu la waxoon de. kii bi la. léegi seen xale ba mu déggee ne day ñëw ci yow ba léegi day see day profité bu see xale jigéen parce que xam na ne génn bu ñëwee ci yow day génn. ndox mu daan jitt bu ñëwee rek ma ma sotti ndox mi. déggoo ko mu wax. nga ne chaque jour. da ngay ànd xale bu jigéen. da ngay seey moom. damay profité. Hmm? lu tax ngay profité. ah. pour déggee Thierno. mu déggee Thierno mu ne. moo tax ngay mu nekk fii si kër Thierno ba tey tey sax ànd na. Hmm? maanaam bu nelawee rek nga ànd moom. Hmm? bu nelawee. tey tey tey fii la sa xale bu jigéen bi rek ndoxam mi tuuru. mu ne. ñu ñëwee day da koy feres rek ndoxam bi tuuru. si. ndox mu jàpp bopp bi bopp xale jigéen bi. mooy xale jigéen bi lu gën a. ah jigéen bi. papaam da koo bëgg ma naa ko tàggalee papaam. Hmm? maa ko tàggalee papaam. papaam ana mooy fi. papaam a ngi dund ah waaw waaw ah lii papaam bu ko déggee dinañu wax. yaa ko tàggalee papaam. si xolu papaam bi ko fexeel de mu ko bëggee fexe rek la jàpp papa bi. mais. la jàpp papa bi day jàpp papa bi papa ji parce que papaam. daf danaan def garab ngir moom mais bu bëggee jàpp xale sëy sëy naa papa bu jigéen bi papaay xale bu jigéen bi si moom laa dem ma yàq xalam bi mu tas sëy bi. Hmm, eh, mu ngi wax. Hmm. mu tas sëy bi. maa ngi nuyu boobu. koy may xale bu góor bi boobu bëggutoon xale bu góor bi di ko. Hmm. moom xale bu jigéen bi. man xale bu góor ki mu sayal nii ah? dañ koo forcé ñu may ko xale bu góor bi. Ah? bi. nekkoon a léegi xale bu xale bu jigéen bi léegi dafa bëggoon a bàyyi. may jàpp mariage bi après bi jàmbu. yaa xam jigéen daa bëggoon a bàyyi bañ jàpp mariage bi mu jàmbu. ba ñu ne suba la mariage bi. mu jàmbu jigéen bi jàmbu. loolu yëpp kàlla woon dem mu weeru. lépp kàlla yow la. naa defoon diir boobu. yaa defoon loolu. waaw mais damaa mujj weeru. noo weeru ku la weer. sama benn xarit. Hmm? moom laa ko waxoon. sa ah, benn xarit si diine. waaw sama benn xarit. diine la. waaw. ma ne ko suñ jàppee mariage bi bu ñu suba la ba ñu indi bagage man ma dem ko dafa yàkkamte mu wax ko papay xale bu jigéen bi dégg ko dem daaj ah? daaj ko dem ba léegi hmm. gis waaye du mën a dem moom lu ko xale bu jigéen bi lu ko nit bëgg bëgg mën naa ko gën a bëgg. ko sori moom fu ne rek ma nekk fa xale bu jigéen bi moom ma koy sori. Hmm. du yow yaa bëgg nga xale bu jigéen moom ma ko noppal de chaque jour rek chaque may ànd ak moom. loolu moo tax xale bu jigéen bi bëggul beneen góor góor bu bëgg ñëw pour takk kii ko yaakaaram tas. yow ak moom Dina yomb na de am hmm? kon yow yaa def yooyu. waaw maa def loolu dama gaaw a waaye dama gaaw a gaaw a mer. yow mais gaaw a féexal. sama safara laa yor. xaalu safara waaw. ak mm. xaalu ndox ak xaalu ndox xaalis safara gi si laay yàqee lu bari nit xaalu mm. ndox mi ci ngay defaral si lay doxantu mais ngay def nii hmm? yàgg nga di def li man maay def sëy si biir dox su ma génnee damay liw ah. jinne bi day xeex ak. jinne bi xale bi jigéen bi. waaw ah. moom dafa dem ay bëggam xaw ma ko tudd. ba fay xale bu ji. lan moo da yaa jàpp ko ci lu tax jàpp ko ci jinn bi mooy wax ni hmm? kan mooy wax ni jinne ban jinne moo la boole papaay xale bi jigéen bi moom mooy tas ma tas sëy jinne bi papay xale bu jigéen bi moo tas sëyu xale bu jigéen bi moo tas waaw mu tax mu tas sëy bi jinne bi mooy jaar si moom mooy kan anaga anaga yow jinne bi foo nekk anaga ah gisuma la

ñu ne nii soo yeneen tër yi nag naan ay nangam nangam du gis nga. waaw junne da ngay lekk tàngal nañ reer bi ko ndekki bi ko léegi nag yow ni ñuy defal yow léegi na mu bëgg a génn ci kii gannaaw macha allah waxtaan nan nga ñëw depuis ban heure lañ commencé ak ah jour asaf la 12 heures 12 heures. 2 heures lañ commencé ba 6 heures. bravo. 2 heures si guddi ba 6 heures. Hmm. man de sonn ma. waaye man de sonn ma. xiif laa defoon waaye sonn ma. waaye lekk naa gerte ba parce que xiif sonn ma. waaw waaw génn ci moom nag doy na. lu ngay vivre nii nag. ni ngay def naan nga wax nga leer muule ah. leer. leer muule ah. leer muule. noonu la tudd. waaw ah, leer. mu ne. mu ne ma dem reer. ci <laughs> ne bi baax na nee na ma demal reer. moom kay génnal rek. yàlla. <laughs> ma demal reer ah kii baax na ci man waaye ah, nag yow da ngaa téye reer bi ba ndékki nga ko indi waaye génnal génnal nag yow génnal ci yaltu bu bu tama la sonal génnal ci moom yaa ngi xool photo yi. yàlla. génnal ci xale bu jigéen bi doy na nag génnal ci moom. sonn nga sonn na n'est-ce pas génnal ah, waaw génnal kon gannaaw sonn nga génnal nopp yi waaw ah, génnal yaltu jëm yaltu yaltu yaltu yaltu génnal ci moom génnal soor génnal ci moom yaltu muy génnee ci xale bu jigéen mu muy génne génnal ci moom génnal génnal génnal ci moom génnal génnal ci moom yàlla génnal génnal génnal génnal génnal génnal ci moom génnal yàlla génnal ci xale bu jigéen bi génnal ci moom génnal yàlla yàlla yàlla yàlla génnal génnal bul siis génnal génnal ci moom génnal génnal ci moom génnal ci moom génnal ci moom génnal ci xale bu jigéen bi yàltu génn yàltu yàltu fooyraa fooyraa génnal génnal génnal ci xale bu jigéen bi génnal ci moom génnal ci moom yàltu yàltu génn yàltu yaltu yaltu yaltu yaltu yaltu yaltu yaltu yaltu yaltu yaltu génn génnal ci moom génnal ci moom génn génn génn génn génn génn génn ko génnal ci xale jigéen génnal ci moom génnal ci moom génnal ci moom génn génnal ci moom yaltu yaltu yaltu yaltu génnal génnal ci moom génn yaltu yaltu génn yaltu yaltu yaltu yaltu yaltu génnal ci moom génnal ci moom yàlla yàlla yàlla yàlla génn génn génn ci moom génn yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla génn génn yàlla génn ci moom génn ci moom ba nga set génn yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla génn yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla génn génn génn ci moom génn ci moom yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla génn ci moom génnal yàlla yàlla yàlla yàlla génnal génnal xam nga jinne yi génnal parfois dañuy dugg pour génn bis problème la yàlla yàlla yàlla yàlla ba gën a génn yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla teg ko côté yàlla yàlla yàlla instant bi moom jéem a génn dafa yàgg nag ci moom yàlla génn génn ci tali génn ci moom yàlla yàlla yàlla génnal ci génnal ba nga set génnal ci biir bi génnal ci bopp bi ci tànk yi ci yaram bi génnal nag doy na génnal yaltu yaltu yaltu yaltu foyra foyra sagalo foyra foyra foyra foyra génnal ji moom nag yaltu yaltu yaltu génnal yaltu yaltu kawasi la dafa sol daal waaw. tànk yi amul daal. génnal ci moom yàltu yàltu génnal génnal ci xale bu jigéen yàltu yàltu yàltu yàltu yàltu yàltu yàltu yàltu yàltu génnal génnal ci moom yaantu yaantu yaantu génnal ci moom génnal génnal génnal génnal génnal génnal génnal ci moom yaantu yaantu yaantu yaantu nga ne kii bu mag la de yaantu génnal génnal ci moom génnal yaantu yaantu génnal génnal ci moom génnal ci moom yaantu jël yaantu yaantu yaantu yaantu yaantu yaantu génnal génnal moom mi def li mu mën a moom mi génn de yàltu yàltu yàltu génn génn ci moom yàltu yàltu yàltu yàltu yàltu génn génn ci moom génn génnal bi yow jinne bi génnal leeru mu de génnal ci moom leeru mu de génnal Seydina Ahmad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Muhammad Rasulullah génnal ci moom génnal leeru muule leeru muule génnal yaltu leeru muule laa ilaha illallah leeru muule yaltu génna yaltu laa ilaha illallah yaltu yaltu génnal génnal ci xale bu jigéen ba mu set yaltu génn laa ilaha illallah yaltu laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah yaltu yaltu génnal ci moom génnal ci xale bu jigéen yaltu génn génn génnal ci moom génnal ci moom génnal ci xale bu jigéen yaltu génnal ci moom génnal ci moom génnal ci moom génna génna génna génna génna génnal ci moom ba nga set génnal génnal génnal ci moom génnal ci moom yaltu yaltu yaltu yaltu Ah, génnal ci moom génnal ci moom. génnal ci moom yàlla yàlla fi génn génn ci moom ah génne bi ci moom génn génne bi ci moom doon noom xeet bi ci moom génnal ci moom génnal. non bul la de bi. génnal ci moom yaltu yaltu génnal génnal ci moom leeru muule génnal ci xale bu jigéen bi ci xale bu jigéen bi yaltu yaltu yaltu yaltu génnal ci moom génnal ci moom génnal sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf yàlla. gën a. laa ilaha illallah. jërëjëf yàlla. laa ilaha illallah. Mhm. Muhammad rasulullah. sallallahu alayhi wa sallam. laa ilaha illallah. jërëjëf yàlla. laa ilaha illallah. laa ilaha illallah. Muhammad rasulullah. sallallahu alayhi wa sallam. yan su jërëjëf. jërëjëf sëñ borom. Seydina Muhammad Rasulullah waaw yàlla rek ay buur Seydina Muhammad Rasulullah waaw yaltu jën yaltu génnal génnal yàlla ko màggal génnal si moom génnal si moom yaltu génnal ci moom yaltu Danke, danke. ライママライラ水炊きライライママライライママライライママもうだげなげなこえらこえらこえげなややややげなげなげなげなげなげなげなレールモレレールモレげなちゃかれるやや Gel. Gel lan. bi si mën a kërëkër bi waa ma nangam nangam hay hay génneel ci xale bu jigéen bi génneel ci moom yönetimim. కోవడాలు da ngay génn wala doo génn kon ful kan génnal ray naa la yolomal naa la ba sonn génnal kañ ngay génn kañ ngay génn yow ah kañ ngay génn génnal ci moom génnal ci moom yaa ngi génn fan nga toll fan nga toll ni yaa ngi fan ah yaa ngi ci ndigiri waaw génnal forcel Gënal waay gënal. gënal. yaa ngi fa foo nekk nii. génn wala doo génn génn a fan nga nekk ah waaw gen laa wax bu ñu fontoo génnal ci xale bi wala ma defal la bagage génnal ayo eh génnal ci xale bi laa wax nga bàyyi ñeeja xale bi génnal si moom laa wax boo génnal ci moom du baax génnal ci moom du baax ci yow génnal ci moom génnal génnal ci moom dal ci moom laa ay da eh, ngay génn wala doo ah waa kon Fulkan dégage génnal ah dégage génnal yàlla def ni yaa ngi fan. day génn rek dinaa leen bëgg a wàcc. wàccu génn bi nag wàccu bu baax bi. wàccu bu baax. wàccu muy wàcc léegi mu génn. day génn génnal génnal mbokk yi gis ngeen garaaw bu duggee ci nit parfois bu bukkee génn sax moom ci boppam day day pour mu génn da koy tëj dina bàyyi bëgg génn depuis sànq ñoo ngi moom ba deux heures ba ñoo ngi si xaw ma deux heures si matin ba wala nga ba ñoo ngi ci huit heures xaw ma sept deux heures du matin ba huit ba ñu ne huit heures defe naa est-ce que yoroon huit heures bi sept heures quarante benn ñu ne mooy bëgg génn nag ñu ne fu mu génnal génnal loxo mbay bu tël bi ma

Buyurun. Nara, nara. Nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara. gën a laax daal gën a

genoltimoy yaltu foyra foyra foyra sagalo foyra Oh. ne ci moom laa wax kenn génn ah yaay da ngay génn wala doo génn génn waaw ah, kon génnal mari génnal ci kii waaw yow da ngay génn wala doo génn waaw ah, kon génnal génnal ci moom Genel fikir bu aynı. Şöyle bol sol bulmam lazım. Böyle ayağı hemen bana sol. Ben bunu bunu jeki jeki kol ay boy naan mak. Ara anter mu la sol. Loolu taxul man ma sol. Billahi bi yoon bu ma jógee wallahi dama génn ci man force. Genel bàyyi la. Ana doy. Genel sigi. he doo génn da ngay génn wala doo génn ah. dama génn. génnal dama génn. mer de la génnal si kii. waaw xëy na gàddu nga ko. réel nga génnal si lii waay. يا لطيف واي لا اله الا الله لا اله الا الله yàlla. gënal. waaw xam nga daañu jàpp gënal daañu jàpp. daa mel ni kii ay jinne bon après toog naan lii nangam naan ma ne lii du caa lii du caaxaan. depuis ban heure lañ nekk muy ànd moom. deux heures ba ban heure. loolu waaw yëpp woon na wala muy yàqu. beneen ci xale bu jigéen bi waaw. yonent moom beneen gënal daal ci Géejawaay الشام رفيق génnal génnal faa yow génnal génnal génnal nga dem dugg fi nga war a dugg génnal aywa génnal génnal génnal aywa génnal génnal yaa ngi fan ah. ah. yaay fan. suñu borom bi. waaw génn génn génn si moom. génn. génn si moom. genel ci kii Ça y est. Hein? waxaan na kalla ci xale Cissé. Magar Cissé. jox ko benn bu bu baax gàllandikul ba pare. comme mu wàcc aussi bu baax. tuufli gàllandikul nga tuufli gàllandikul ndax bi nga góob nga tëfli ko wala da nga koo naan. ñu ne si yëpp sama papa ma ko tas maanaam daf ma bëgg ba ne man kii sama jëkkër la c'est soo waxee mu ne yéene bu kii maanaam xalaat bu rafet la moom ak ak gën waaw ñu ngi ànd maa moom bëgg sam yaay wóolu ko jël ma jox ma ko pour mu indi ma fii fañ ma si fii ñu ne sama jëkkër la mais taxawaay boobu rek la ma taxawu. taxawaay ba. ñu takk gun ma. Hmm. su ko amoon tey tey moo ko gën a. la. su ma mënoon nekk tey soxnaam moo ko gën a. kon tàggu la. takkagu la li da nga dafa da ngeen bëgg a sëy yéen ñaar hmm? maanaam lu mu ànd ak man moo tax am na ñu bari ñu ne sama am na ñu naan ma sa jëkkër bi sa jëkkër bi mais takkagu fexe na nu ma takkee ba sonn mais am na lu nekk si diggante bi. ñu nekkul di mukk instant bii day ngoro ngoro ak yow. man ku ma gis bëgg ma. mais hmm. dama jël sukkur indi ko si man. mais. dafa nekk si man. sama jëkkër bi ma tàggoo def na ma liggéey yu bari. ñu ne ñu wax na ko yëpp def na ko. Hmm? gars na loolu naka. moom ma si liggéeyam si man. lu ma liggéey suba si bàmmeel man liggéey nañ ma hmm. sama liggéey beneen bi ñu ma boole sagaru dof garu xaj garu muus hmm. morso maa ngi niw ma dee wala ma dof wala ñu tëj ma kaso. loolu ñu def mais yooyu yëpp du sotti nag. ñu daanee dëpp bopp. daanee dëpp bopp. ci nga tàngal affaire yi saa waaw wàcc na ma. wàcc na. waaw sama jëkk bi bu ma takkee dafa am alal bu dul jeex. ñu fay wante un mois amatul dara dara day dox di taxawaalu rek. foofu saale bu tàng. waaw mu tàng waa xew. ne léegi dina ma takkaat. ñu koy wax ni instant bi waaw. sa jëkkër man suma am suma fii dee naa ko yàgg hmm. lu am doole moo nekk si man góor gi yow foo dëkk man dëkk Daaru Salaam. Daaru Salaam Touba waaw. Nioro. xam nga ne rab bi nekkoon ci yow soxor la ah. rab bi nekk ci yow xam nga ne soxor la. rab bi nekkoon ci yow xam nga ne soxor na. waaw. depuis deux heures lañ fi nekk ma ak yow ba huit ak caméraman beeg ñëpp. rab bu soxor te am doole. te am doole huit heures vingt trois depuis deux du matin ba huit heures vingt trois ci suba ah, ah jël nañ temps de. tey reeruñu sax. mais alhamdulilah yàlla def na génn. ah. waaw ah, wàccu moom duñ ko def mais alhamdulilah gannaaw yàlla def na génn. man ku ma dig doo ma jox. ku la dig doo la jox. lu ma yaakaar mu tas. loolu bu baax ba affaire yi génn na ci yow. léegi yow waaw ah, konkon santal yàlla <coughs> yàlla defee li la sonal lii fexe ba mu génn ci yow ba nekk léegi